اليوم معكم أخوكم عادل البليج مدير شركة بيكوك أولا أدعو أدعو عز عز الله عز وجل أن يقبل منا الزيارة وأن يبارك فيكم وفي فضيلة الشيخ كما تعلمون صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين ملك المملكة المغربية يعز يعزكم كثيرا وفي علاقات متميزة ما بين الطريقة المريدية والمملكة المغربية نتمنى من من منكم الدعوات لكي ييسر لنا استثمارنا في دولة السنغال الشقيقة والصديقة نحن بدأنا الاستثمار في بلد السنغال الشقيق منذ 2013 ومشروع طموح لبناء 2800 منزل الحمد لله المشروع يمر بظروف جيدة من 2014 إلى يومنا هذا تمكننا بفضل الله عز وجل من بناء و 2400 منزل في 2015 15 تشرفنا بأن المنازل الأولى تفضل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وسعادة فخامة الرئيس ماكي سال بتسليم مفاتيح الشقق نطلب من عنده تعالى دعواتكم الله يبارك فيكم ويسدد خطاكم وحياة مجيدة لشهادة الشيخ إن شاء الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنين شكرا جزيلا على هذه الزيارة شكرا على هذا الاستقبال الرائع وحنا في خدمتكم في خدمة المريديين عبر العالم ولنا شرف باش نمكن أي مريدي إن شاء الله بفضله وعونه نمكنوه باش نسهلوا ليه مأمورية اقتناء سكن صالح بامتيازات كثيرة ودعواتكم معنا أشكر كذلك اصدقائي واخواني اللي اللي معايا في الشركه على راسهم مسيو ديان صاخ السيد كايري السيد بدراء السيد مبانقي واذا نسيت احد فليعذرني هذا هذا المكان عظيم هذا مسجد تبارك الله نحس ملي تندخلوا لهذه المدينه الرائعه هذه المدينه الطيبه هذه المدينه الشريفه منين تندخلوا تنحسوا واحد الاحساس غريب وفريد احساس خشوع فكرني في في الاماكن المقدسه فكرني في المدن العتيقه والمدن الشريفه في المملكه المغربيه يا رب يا رب يساعدكم باش تكملوا هذا الخير واتمنى لكم ما قال سعيد زياره ان شاء الله لاخواني واخواتي الموريديات وكذلك لكل المسلمين الصحة والعافية والتقدم والازدهار والسلام والسكينة للشعب الصديق للشعب الأخ السنغال يا رب أمين سدد الله خطاكم وشكرا جزيلا دائرتنا المقدمة الخدمة الذي بأمر الشيخ kallafahu fi tansiq wa tanzim wa taxtiit kull ma yaduru fi masjid min amal wa ma zaaba dalika wa nuraxib bikum jamian ala xusni qiyaamikum fi haasi amal al jayid nuraxib bikum gaayat al dukri wa natamayaz fi haasa al kalaam الذي جر بين صعب السنغال وصعب مغربية هناك علاقة متينة قوية طال في أيام قبل قبلنا لأنهم قاموا بأعمال جميلة في المسجد في زخرفته وتزيينه هذه أعمال كلها صادرة من أعمال maghribiya wa ant naskuruka jami saada sukri ala husni xiyaamika li musharakati fi tanzimi seel xadim ci safar wa aqulu naskuruka xayra sukri wa nahnu bi janibika nusaa'iduka fi kulli ma yaliq alqiyam bihi wa nasalullah subhanahu wa taala an yu an yuqaddima wa yubarik fi amalika wa sharikatika xata an yakuna min ala shuraka fi sana fi alalam bi jaay xaalim rasul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ngi ñu bu baax ci kàddu yi ñu suñu kanamu kilifa yi waaye ndigal moom bu jibee rek dañuy du ñu def lu jëfee ko lu jiitu nag damay sant bu baax a baax sëriñ Touba Xaadim Rasul di sant bu baax a Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général de morit di sant bu baax a baax a baax. sama sama sama goro sama mag sama xarit Mbacke Balla ñu ngi lay sant bu baax sëñ Bousso tam ñu ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi ak waa daayira waa daayira Muxaddamatul Xidma yëpp ñi nga xamante ni liggéey bu am solo lañ nekk def ci fii ci Touba rawatina ci grande mosquée bi ci jumaa ju mag ji ndax ku ne jumaa ji rek mën nañ ne mën nañ ne maanaam sëñ bi ko fonkoon la te moo mooy mandarga mouridisme tey ji nag maan maa ngi tudd Mouhamadou Diagne Sarr di liggéey ci benn société boo xam ne mën naa ne société marocaine la waaye ay sénégalais rek ñoo fay liggéey ndax euh, man mii ci njaboot googu laa bokk waaye ci njaboot sañ Touba laa bokk te maa ngi fay gis sam bopp ba lépp loo xamante ni daal ñoom am nañ yéene ci Touba bu ñu ko jaarale ci man rek man damay jaay ci sëñ bi mu yeggalee ñu ko ren nag mbir yi xatoon na lool lool waaye dañoo dañoo yéene bi ñu amoon suñu borom antal na ko moo tax ñëw nañ siyaare si leen daal leen daal leen fas yéene jox Euh, plus de 3000 sacs en polystyrène pour jàppale leen ci cetu du jumaa ji ak plus de mille bouteilles yoo xamante ni kilifa gi jël na ko dina ko teg seen loxo incha allah pour jàppale leen ko te nag mi ngi leen di firndeel ni di leen seedeel ni moom ku bëgg ku bëgg Touba la mu ngi leen di firndeel di leen seedeel ni ku am yéene la ci Touba ndax du ñu toog bis semaine du ñu toog réunion te waxuma ci waxu Touba mi ngi nii dafa waroon jël avion waaye dafa bàyyi lépp ne foog mu gisanteeg sëñ Muntaxa foog mu ñëw Touba ngir dem bañ na ko ba sax moom moom moom papaam la koy wax ndax bëgg gu mu bëgg sëñ mun Muntaxa mu jaral ko dafa écourté ay congé ñëw war a delluwaat mu mu mu décalé waat pour fekkee lii kon moom dañuy dañuy jàpp ne ci njabootu sëñ bi la bokk te am na yéene lii mu def Diamniadio tam am na yéene def ko biir Touba pour jàppale murid yëpp ku nekk nga am dëkkuwaay kon ñi ngi koy ñi ngi leen koy dénk di ko doolee dénk sëriñ bi ngeen ñaanal ko yàlla ba lépp lu mu yéene bu mu am ci Sénégal rek suñu borom defal ko ko di nuyu tamit suñu mbokk taalibe yi ñu àndal yëpp ku ci mel ni sëñ Ngañ Kéré ku ci mel ni Alioune Badara Malick Mbeng ak As Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngeen di siyaar bu baax di leen jaajëfe bu baax ndax xam nañ ni màggal gi teru na jot gi xat-xat yi bëri na waaye ngeen daal ñuy defal xewul gu yaatoo nii lu kawe suñ jot la wax dëgg yàlla ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla nañ ko teewee ay nëgëni déwéni déwén ba dem ba noué partenariat entre Peacock Investment ak la grande mosquée bu baax lu mën a nekk la ndax xam nga moom lu soxal murid yi rek moom mi ngi ci man murid laa ndax xam am na loo xam ne depuis plus de huit ans ñu ngi dund man ak moom kon loolu su ma ko waxee rek am sañ naa ko wax ndax xam naa ne lu lu mën a nekk la lu am la te diggante jumaa Touba ak Pikog moom bis bu ñu defee partenariat moom wala loo moo wax man su ma ko yeggee dina ci def dina ci xar tànk tubéyam incha allahu rabi kon moom nekkul directeur boo xam ne dafa dafa tëju ubbi na ay buntam ndax sànq mi ngi dugg si rek mi ngi naan dinaa la jox sama carte visite nga jox leen ñoom ñëpp ku nekk yor suñu sama carte visite ku ma soxla rek woo te xam naa ni communication bi dina dina dina gën a dina mën a yomb ndax dégg na naa dégg ngeen naa kon daal xam leen ni seen seen mbokku bi moo teew fii ànd ak ay mbokku taalibe fekk fi ay sëriñam kon daal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërë ngeen jëf